waroon nañu mën a continuer ba quatre heures du matin man li ma gën a métti loolu maître Niass bi bëgg a daw troisième mandat man loolu ma métti alors que moom euh. c'est un avocat à la cour war na ci jox xalaat ah, ci laa bëggoon na ñëwaat balaa muy jeex de il faut mu wax ñu lan la ci xalaat troisième mandat ci sa xalaat quand même <laughs> voilà waaw euh, xalaat bi nag euh, mën naa ko joxe mais il faut que may ma tuuti temps <laughs> parce que nag c'est pas c'est pas waaw man jàpp naa ne que question troisième mandat bi avant muy nekk politique avant muy nekk éthique morale. Mm c'est avant tout juridique. Mm -hmm. c'est une question qui est éminemment juridique. absolument et jafewul comprendre ndaxte pour man étudiant de première année licence mun na tontu euh, question bi. parce que on a tous les outils dès la première année pour euh, xam euh, droit constitutionnel. première année nga koy jàng. Mm-hmm. waaw léegi euh, dama bëggoon vraiment def benn tout un développement commencer introduction développement conclusion. Mm-hmm. Mm-hmm. def une dissertation. su fekkee mais nga ma tuuti temps. tout d' introduction bi li may ñëkk expliquer mooy le droit constitutionnel c' est un droit qui est accessible c' est un droit qui n' pas technique. loolu moo tax tey soo jëlee constitution nga nekk juriste ñàkk nekk juriste tu comprends le texte sans problème nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. loolu tey Moustapha Diop peut le comprendre Issa Tine peut le comprendre euh, qui est juriste le comprend et même même compréhension bi la. donc euh, parce que tey nii doon jàpp ne que ñun ñëpp la soxal moo tax dès la première année lañ lay jox te texte bi ni ñu ko bindee c'est pas juridique. c'est c'est maanaam c'est c'est c'est c'est c'est littéraire ah c'est littéraire c'est accessible alors que tey yeneen matière droit droit des sûretés droit des obligations yeneen matières c'est beaucoup plus Euh, technique complexe. Mhm. am na benn kii euh, notion par exemple cause en deuxième année on te dit si tu le comprends on te l'a mal expliqué. Mhm. donc yooyu yëpp maanaam da yenn journée si benn notion wala benn article pour le comprendre c'est tout un problème mais droit constitutionnel moom c'est un droit qui est accessible loolu la mhm. loolu mooy la première chose. deuxième chose mooy première année on t'apprend aussi li ñuy woowee pyramide de Kelsen mooy que tey constitution c'est au sommet. <laughs> mooy ndeyu charte réew mi loolu moo tax ñooy ndeyu charte réew mi ensuite tu as convention internationale tu as les lois décrets et cetera loolu c'est qu'est-ce que ça que tey norme inférieure ne peut pas euh, déroger à la norme supérieure constitution dara mënu ko tënk lu mooy constitution mm-hmm. lool c'est très important su ma développé dinañ comprendre lu tax ma wax loolu ñetteel bi mooy l'application immédiate de la loi dans le temps maanaam loi bu ñëw day régir la situation la loi nouvelle de la loi nouvelle su ñëwee day appliqué wu si saa si ma dàq principe de non rétroactivité bi Aliou Sow di jël tout le temps <laughs> principe de non rétroactivité ne s'applique pas en matière constitutionnelle lu mooy lu mooy en matière répressive pénale article 9 de la constitution qui dit mhm. que euh, nul ne peut être condamné si ce n'est euh, avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi kon article 9 moo may euh, le principe de non rétroactivité Euh, valeur constitutionnelle en matière pénale à part ça et loolu intéressé wu ñu fii nii le principe de non rétroactivité a une valeur législative mooy li ngay cité la loi ne dispose que pour l'avenir c'est la, c'est le code civil c'est pas la constitution donc la constitution pour ñu comprendre bu baax a baax balaa may développer la constitution c'est l'application immédiate de la loi immédiate léegi nag ma dugg ci développement bi en commençant par 2000 ba 2024 en 2000 président Abdoulaye Wade a été élu président sous constitution wu 1963 moo ko fal ñaari yëf moo amoon benn septennat la am en 2000 deuxièmement illimix maanaam y amul amul woon limitation de mandat. le bureau avait sauté ah le bureau avait sauté. exactement bi ñu koy fal en 2000 sept ans amul woon euh, limitation. Mm-hmm. en 2001 mu indi constitution bu bees tax constitution de 2001 indi benn le quinquennat cinq ans deuxièmement mu am limitation le mandat se renouvelle une fois léegi nee naa la sànq euh, application immédiate normalement ça devait s'appliquer au mandat en cours maanaam mandat en cours dafa waroon def 2000 ba 2005 ensuite 2000 ba 2000 2005 euh, ba 2010 mu jeex. maanaam 7 ans yi dafa waroon tëb. 5 7 ans yi dafa waroon tëb. Mhm. demeewul noonu lu tax. parce que y a eu une disposition transitoire. article 104 qui dit. Mhm. le président de la République en fonction. continue son mandat jusqu'à son terme mm-hmm. loolu tey article boobu tey moo may président Abdoulaye Wade def sept ans au lieu de cinq te loolu tamit moo lay wane que de non rétroactivité amul parce que su am fekkoon principe de non rétroactivité mooy mooy mooy appliqué wu duñ def disposition transitoire boobu noonu donc la disposition transitoire a permis à ce que l'application immédiate ne s'est pas appliquée ne s'est pas n'a pas eu lieu en tout cas en en 2007 président Abdoulaye Wade faluwaat pour cinq ans constitution 2001 ak limitation de mandat bi ñu demee 2008 mu changé waat constitution bi indiwaat septennat si biir manda bi mu ne verrouillé na constitution mënatul nekk euh, candidat en 2012 mu dem 2012 wax waxeet présenté wu euh, conseil constitutionnel validé candidature am bi nga ko validé opposition daal def recours ñoom Macky Sall Idrissa Seck Ousmane Tanor Dieng ñoom ñëpp def recours ne lii jaaduwul conseil constitutionnel li mu wax moo intéressant en 2012 mu ne mandat premier mandat mandat 2000 2007 constitution 1963 moo ko régir ndaxte l' article 104 boobu noonu tey moo may président euh, mun a euh, maanaam euh, constitution 1963 appliqué ko. Mhm. maanaam fu àggali mandat bi donc mais nangu amul donner et reprendre ne vaut en droit donc l' article 104 boobu noonu tey en réalité moo tax ba on n'a pas euh, comptabilisé le mandat de 2000 à 2007 mhm. man je considère que analyse boobu noonu de conseil constitutionnel c' est critiquable parce que notion mandat bi daf ko élargir parce que en réalité 104 durée rek la wax le président de la République continue son mandat jusqu'à son terme mais conseil constitutionnel considère que le mandat ñaar yëpp la ëmb durée ak euh, notion de nombre bi mmh. ñaar yëpp la ëmb c'est critiquable mais c'est pas inconstitutionnel deuxièmement concernant wax waxeet bi dafa ne amul valeur juridique donc loolu mooy 2012 en 2012 président Macky Sall gagné élection yi bi muy gagné donc septennat la sept ans ak limitation de mandat en 2001 donc 2012 loolu la fi fekk mais il avait promis que day wàññi mandat moom en cours pour que démocratie sax bi ñu demee 2016 effectivement mu réviser constitution bi jëlee mandat de sept ans à cinq ans bind nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs loolu reformulation la mais existé na depuis 2001 le mandat se renouvelle une fois ak nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs c'est les mêmes effets même même même conséquences la reformulation beeg moo wute après nga critiqué mm. donc <laughs> euh, donc en 2016 su fekkee ñëwaat nañ toujours si l' application immédiate normalement il devait euh, réduire son mandat te loolu la promettre Sénégalais mais bien sûr dugg na si pouvoir yi fi neex na donc bëggul wàññi mandat am c' ça la réalité et su defee disposition transitoire comme Ablaye Wade mm-hmm. là wax waxeet lay doon te référendum bi mën nañ ko bañ a en réalité su defoon nag disposition transitoire comme a fait Ablaye Wade non seulement day justifier les sept ans, les sept ans mais en plus de ça 2024 bi sax daf koy mën euh, participer parce que doo nangul Ablaye Wade bañal euh, président Macky Sall jurisprudence Ablaye Wade oui. en réalité il y a pas eu la disposition transitoire parce qu'il avait promis qu'il allait réduire son mandat en cours léegi. loolu est-ce que am na euh, valeur juridique. bàyyi ñëw bàyyi ma ñëw maanaam article kay defoon fee moom bi réviser kii bi. defu ko defu ko ok mu pour pour euh, mën a maintenir les sept ans. Mm -hmm. sans euh, la disposition transitoire mu dem gisi conseil constitutionnel article cinquante et un permettre na ko mu laaj ci avis am avis du décision da ngay laaj xalaatam bi mu demee nekko ko dama bëgg wàññi sama mandat conseil constitutionnel ne ko euh, mënta nekk le mandat de 2012 est hors de portée de la révision constitutionnelle de 2016 en réalité foofu noonu le conseil constitutionnel a appliqué le principe de non rétroactivité sans utiliser le mo parce que ne le mandat de 2012 est hors de portée de la révision de 2016 loolu mooy la. de la révision bi ne concerné na nul ne peut. la révision la bi nul ne peut ci la bokk. waaw da nga may may ma expliquer. donc la révision de n'est pas euh, rétroactive mais utiliser wul moom parce que xam na ne que euh, amul valeur constitutionnelle. donc foofu noonu man je considère que décision boobu noonu euh, elle est inconstitutionnelle man personnellement mais. était président Macky Sall n'était pas tenu à, à, à de l'appliquer parce que c'est un avis mais il voulait faire les sept ans coûte que coûte en réalité suñu tegoon lépp si yoon application immédiate 2016 bi ça devait diminuer le mandat de 2012 donc jeex 2017 de 2017 jeex 2022 donc en réalité tey man waxuma sax 2024 mais non. depuis 2022 jeex jeexoon na. on devait avoir une alternance depuis depuis depuis daaw. Mhm. idée bi jeex na depuis daaw en réalité suñu waxantee dëgg. donc mu des benn point mooy la question euh, président Macky Sall dafa ne journal L'Express la question juridique est réglée depuis 2016. déedéet parce que en 2016 la question posée au conseil constitutionnel c'était dama bëgg wàññi sama mandat. fii nii en 2024 ce sera dama bëgg nekk candidat donc l'objet est différent mais 2016 lan la ñu amoon. maanaam 2016 lan lañ amoon après référendum bi lan la woon. c'est-à-dire lan moo nekk différence su li ñu amoon en 2011 benn différence la benn différence la mooy dañu indiwaat quinquennat bi mais limitation de mandat en réalité maanaam dañu bëgg mu gën a euh, leer nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ak le mandat se renouvelle une fois c'est les mêmes effets mais dañu bëggoon mu gën a leer parce que article boobu noonu ça vient de l'article 6 de la constitution française bind bi rek la ñu gën a leeral mais sens bi c'est la même chose mais li changé en 2016 c'était le quinquennat le retour du quinquennat léegi président bi mu ne la question juridique est réglée depuis 2016 l'objet n'est pas le même donc la question n'est pas réglée en réalité premièrement su fekkee li conseil constitutionnel wax 2016 euh, maanaam constitution 2016 bi mënul tënk mandat de 2012 ça veut dire que constitution 2001 mooy tënk mandat de 2012 or constitution de 2001. prévoir woon na limitation de mandat et ça Macky Sall l'a dit hein. waaw loolu Macky Sall wax na ko benn. Mhm. deuxièmement le vrai problème que président Macky Sall di am en tout cas au niveau du conseil si li ma jàpp te loolu dégguma kenn wax ko mooy président Abdoulaye Wade dafa wax waxet mu dem si conseil constitutionnel conseil constitutionnel ne ko sa wax bi amul valeur juridique waxu président la bi amul valeur de source du droit. fii président Macky Sall yamul si euh, wax dafa bind en 2019 me voici de nouveau devant vous en vue de solliciter euh, votre confiance pour un second et dernier mandat maanaam dafa bind un écrit engage donc kële dafa wax waxeet fii nii bind bindeet la <laughs> waaw et un écrit tey ça engage plus que la parole tey bi tey su bindoon tey bi tey su bindoon damay su ñëwoon wax damay démissionner su bindee damay démissionner c'est pas la même tey nii engage plus et loolu tamit conseil constitutionnel devra dire est-ce que cet écrit là a une valeur ou pas mm -hmm. mais fële c'était juste la parole wax la woon mhm. mais fii bind la mhm. mu des un dernier point bu mu bëggoon wax mooy euh, nomination conseil constitutionnel article 89 tey les sept sages sont nommés par le président la république ku la aar ay gët fu ko neex ngay xool ku la al tànk fu ko neex ngay dem euh, forcément tey mënoo am une décision soit indépendante tey en France conseil constitutionnel bi ñu ko instauré en 1958 critique u doctrine bi c'était mhm. le chien de garde de l'exécutif première mhm. année da koy jàng ah que le conseil constitutionnel pas des euh, des avis il rend des services maanaam lu doon critiquer bu baax euh, seen bi ñu coupé cordon ombilical bi ak exécutif c'était la décision de 1971 liberté d'association foofu noonu pour la première fois le conseil constitutionnel daal di jël décision bu méngoowul ak bëgg-bëgg exécutif euh, la nomination maintenant du conseil constitutionnel en France neuf membres du conseil constitutionnel la mhm. trois yi rek le président de la République di nommé trois yi président de l'Assemblée nationale yenen trois président du Sénat te jeexul de les anciens présidents de la République sont, sont de droit mhm. Euh, à et à vie membre du conseil constitutionnel loolu kese su amoon suñu conseil constitutionnel vu qu'on a tout copié ba si article six bi constitution française nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs loolu tey su amoon rek maanaam ñu ne anciens présidents ils sont de droit au conseil constitutionnel muy président Abdou Diouf président Abdoulaye Wade xëy na décision wu 2016 bi ko am woy là en tout cas du demee noonu parce que je considère que décision wu 2016 bi c'est éminemment critiquable et président de la République tey su demee ba ne la question juridique est réglée te l'objet ne pas le même loolu mooy il est juge et parti ñaari nit doon doon werante kenn ki ne ko jël naa avocat bu mag keneen ki nekk man man nag jël naa juge bi. lii <laughs> naa ci kan moo gagné. Aliou loo bëggoon wax. non mais il a dit beaucoup de choses ah. waaw waaw d'accord ci constitution la ah, amuñu temps ci constitution bi la wax. man le principe rek laa d'accordul ak moom. non soo non non non non non d'accorduma de am na une partie yoo xam d'accorduma ko. <laughs> non non non la non quand j'ai dit la loi ne dispose que pour l'avenir Euh, bon ñu gàttal ko ah. parce que xam naa ni da nga ma naan gin tàcc. maa la wax loolu. <laughs> waaw parce que boo ko naree topp dañ fi <laughs> dañ fi fanaan. non parce que. Euh, non li principe bi li principe bi wax mooy la loi ne dispose que pour l'avenir effectivement je le dis. Mm-hmm. et point d'effet rétroactif en général principe la. yaa ngi dégg bi waxee loolu ba pare après dafa tegu yamuñu foofu dafa ne sauf décision expresse du législateur maanaam man ce que j'ai essayé d'expliquer mooy le législateur waxee léegi nul bi ba mu leer. mais kilifa gi le législateur n'est pas le constituant. xam nga yaa may wax ci domaine. législatif ci domaine euh, légal. yow maanaam li ngay wax la déjà c'est un article du code civil. donc yow yaa au niveau loolu moo tax dès le début. moo pyramide de Kelsen loolu waxuma ko pour joxe ay leçons. mais yow yaa ngi au niveau législatif man maa ngi au niveau constitutionnel. yaa ngi. Euh, euh, si kaw suuf man maa ngi ci kaw. donc soit nga yéeg ñu nekk au même niveau. <laughs> constitutionnel wa ilaa nag nga nekk législatif. mais pyramide de Kelsen boobaa tu le tu le tu la respectes pas. léegi bu ñu bu ñu wooree ba pare. mais un étudiant de première année xam na lii. waaw ñoom ñaar il faut organiser débat ñoom penjoo lañ leen indi. waaw après ci kii bi la ñu mujjee ci constitution bi ni ñu koy formuler ak yooyu. alors aujourd'hui bon les daamaga parce que xam nga bu ma rombee te gars yi waxuñ seen solo yi day xaw a doy waar euh, Rama. waaw euh, à la une comme ni ñu koy waxee habituellement rek. Euh,